nga xamne la wahidun de ken yahtasu di jago bi ci mom duna akhara ci lul keneen nakire mom neena yow mana xamé man nga ne moy bepp li sim bo xamne boko waxe mu daj mbolen xet wa kenn du mëna teub ne diw nga wax ba nangam nga wax ndax ba da nga waxe day ëmb rek mbolen ka insan nit insaan bi fi ak nit bo ne insan insan ak nit rek nit ñepp dugg nañ ci amul takale wa kapshin akum khaf safara yi dox na ñom ñaar boo neem xaaf rek xaaf yëpp dugg na ci boo ne kitaabun téere rek téere yëpp dugg na ci boo ne madinatun ab ville dëkk bu mag rek dëkk yu mag yëpp dugg ci boo ne xaryatun village dëkk bu ndaw dëkk yëpp dugg na ci kon nakira mooy baat boo xam ne ca ko waxee daal dafa daj mboolem xeet wa mu suko su ko jagleel kenn ca xeet wa bàyyi kenn laakin nama taarifuhoo waaye nag ak xamleem taqriban ci jegeñal ñal jëp ci daay ñeel boroomu tàmbali lam yakun ko nekkut la bi ban di aji xelu dañ koy wax ne ko fa kulluma mooy lépp loo xam ne yasluhu dana yiw anta doxla bu tàbbee al al xale ci moom walam tali ji te tàbbiwu ca nee na nakkire boo ko bëggee xamal ku door tàmbalee jàng naxu te yewoogu ca nga wax ne daal bépp baat boo gis taarawut te boo ko taaraa mu neex rek xamal ne bo baat nakkire la mel ne aaxara bi mën nga ne al aaxaru shaayihan bee mën nga ne ashaayihu labsin jee mën nga ne allabsu suman jee mën nga ne assuma taqriban ji mën nga ne attaqribu labiban jee mën nga ne allabibu bépp baat boo gis rek taaruwut te boo ko taaraa mu andi cëg maarifa rek neex ca rek xamal ne boo baat nakkira la daal moo gën a gaaw ci xamle ko na mu xamle ko nu la soo wax alxamalu mooy jëf ja day wane ne alxamal ba nga ko taaraagut booba xamal képp la te xamal yooyu jamono nangu na taara moo tax naa faral di wax naa bu fekkoon ne bi ñu koy bind dañuy bind rek za xamal day gën a yomb a jàng ndax kooku day xam ne xamal ci taaruwut te mas na koo taara waaye fi mu nekk nii moom faaw nga delloo ko ci ba mu taaraagul nag ci taawil door xool na bi ko taara baabul atfi lii moo buntu ataf alxatfu ataf xàlla wàcc na bi faa in ci faa wa waawin ak waaw aw ak aw wa imma ak imma am ak am wa bal ak bal wala ak laa wa ak laakin tumma ak tumma xatta ak xatta ataf moom araf koy def dañoo bari daañu ko wàññi ba mat fukk waaye nag am na ko ñu wàññaale muy imma muy koo xam ne moom wax ji gën faaw day ànd waaw te waaw ga muy àndal ci dëgg-dëgg waaw gaay ataf waaye imma ji ci boppam atafut kon fukki arafi yi daal ñoom lañuy ñuy atafe farfa na nga rafaa bihaa ci fukki araf yi isa xad xatafta ndem ataf nga al ci lañu rafaa dina boo jële wenn araf ci araf yi ataf ci loo xam ne daa fekk mu rafaa kon la nga ataf koy rafaa ndax mu xaw li ko nurug sa ne zaala dañ na xam mi sama njàqare wan na kadu ak tiis wa yow zaala fiilul maadin la ñu binaa ko ci fataa gi moom nag bokkul ci kaanaaki bokkum ndax dafa àndut ak dàq mbaa tere mbaa laajte dafa jekki-jekki di zaalay kese rek kon xam mi mooy faaxilam moom rafaaye damu tele ci ñëk yaay takalim ji tay mudafiya wan nakadu atifun matofun la ci xammi lu ci ataf waaw lu ci an nakadu maxtof li atem top ca lam ataf lu mu def mu def ko ci lu ko top rafa lu mu rafa nga ni dam gi tax nga del ci mufrat wan nakadu koy jang ben ben wan sib nasabal biha ci fukki araf yoyu iza xataf na dem ataf nga xalama ci lo xamne musiba ko batay tey ci nasab da nga wara top nasab ga daldi nasab ka xawli ko ni isdat tu tuqan ragal yalla wa adaban ak itegin isdatu da baye ko ci isdada fiilul maadin la boo ko ba kilo di def nga ne bi nañ ko ci ndax damir ji waral da cey jokk isbad dañoo jël nag add ja soppi ko sàdd def ko ca taatombe ga mooy sàdd ja ngay séen ca taaju nekk ci isdatu ko defee nag tuji mooy nekk faaxilam tuqan nekk ma foolum bihi lum nasabe fataa bi nat la ci alif guñu asof wa adaban aatif nu ma toofun la ci tuqan lu ci ajaataf waaw lu ci maxtuuf adaban ci lim ko top nasab lum nasabe fata gi du tax day li ci mufrat wax fid na nga xafad biha ci fukki araf yi iza xatafta dem ataf nga xalama ci la nga xamne qufida qafadef nako batay bo jëlé kenn ci araf yi ataf ak mom ci lo xamne dafa xafad la nga ataf batay dang koy xafad ka xawli ko ni swaja irhab na nga xemem fi sawabin ci ab yool ورضا انغرم ورضا لا وران دون فيكون ويسر لا يوي تخ مو ديفكو ورضا ديف سي الف جي ان في الامر لا ني بنا سي لي مداريهم دي جسامي تي مودي سكون ابن انت وي فاحلا سي ثواب نيك جارو ما دون تاجي سي ان غف دال دي خفل كسرا ورضا نك مومن مثال اتين ما توفن لا سي ثوابين lu ci fu waw lu ci maxtoof rida maxtoof li atem top lu ma tax lu mu def mu def ko ci lu ko top khafad lu mu nga ne lu mu xafade nga ne kasra bu ñu tali ci alif gi waji sim na nga jasam biha ci fukki araf yi ida hatafta dem ataf ga aydan batay halal mi ci luñ jassam fusta yalla nga tuufu bil ma'lumi ci lañu xam moy ci xam xam ba rek fekke jël nga wén araf ci araf yi ataf ak mom ci lo xam dafa jassam ngay top jassam gu batay taqul da nga wax ci misal mané in tarham dem na nga yëreme wa ta'fu te ngay jéggelé wa tajut te nga tabé takun kon nga nek muqaddaman di kun jital wa tasut te kon nga sang xawma ka saw nit ngay wax in harfu shartin jasimun la tay jassam yaari fi'al fi'al shart fi'al jawab tarham nak moy fi'al shartam tum jasane nga ni sukon gi dab naan tam yu fa'ilam wa ta'fu atifun mawtufun la ci tarham lu ci fu waaw lu ci lu atem top lu maataf lu mu def mu def ko ci lu ko top nga ne jasam lu mu jasam nga ne dag araf rag wa wa taafo la mo min na bu na antam fa'ilam wa fi la ci tarham li ci ajaataf waaw li ci maxtuuf judd maxtuuf li atem topp lu maxtuuf lu mu def mu def ko ci lu ko topp jasam lu mu jasam sukoon gi moom it nëbb naan tomi faanilam takkun nag moy fi'al jawab ji lu mu jasam sukoon nëbb naan tomi li si moom muqaddaman ji nak moy xabari takun ji ndax li ki bokam wata sut atul la ci takkun li ci ajaataf waaw li ci nu ko topp jasam lum jasami sukkoon moom it nëbb naan tam yi faayilam xawma di ma foolum bi lum nasabi fata lu tax de li simi jamum tey mu daaf kaa baabu tawkiidi lii mooy buntub tawkiid waxoo moom tawkiid ya fii dana dikk fii rafxin ci ak rafaa wa fii nasbin ak ci ak nasab wa fii xafdin ak ci ak xafd wa taarifin aku mahrifaal watan kiirin aku nakki daal taw kiit nee na mën naa topp lu rafaa daal di rafaa mën naa top lu nasab daal di nasab mën naa topp lu xafad daal di xafad mënees naa feddali mahrifa mënees naa feddali nakkiri waaye nakkiri nag moom bala ñu ko mën a feddali am na sart buñ cee sart daañu ko wax ci téere yi ci topp yat baaxu dana topp moom taw kiit ma la nga xam ne kaanu nekk na mu wakkadan di lu ñu fedd li jalaa loolu feeñ na la ñuy fedd li rek moom la baatu tawkiit bi di topp lu mu tax mu def ko bu rafaa mu rafaa bu nasabee mu nasab bu xafadee mu xafada alfaazuhu ay baatam nag maalumatun lu ñu xam la xindal ma laa fa mbooloo ma tawkiit nag moom dañ ko sàkkal ay baat yoo xam ni ñoom ngay jël defe ko ko saa yoo bëggee fedd li moo tax mu ay baatam baat yu ràññiku la nafsun mooy nafsun bi firi jëmm wa aynun ak aynun bi jëmm suma kullun topp kullun bi firi mbooleem ajmahu ak ajmahu bi firi mbooleem tuma tawaadu topp way topp li ajmaha ñal ajmaha faaxoo na ngeen wattu nafsu ak xaynu ak kullu ak ajmahu baat la nga boole ci baat yi topp ci ajmaha day def bu ñu feddlee ba noppi jël baat yi mooy bëgg a wax teg ko ci ajmahu mu gën a dëgëral fadli ga waxee ñoom way topp yooyu fii xawli nuxaati ci wax yi way xam ye naxu ak taxu mooy ak taxu bii firi mboole seen waxaa gësaaniki ni ab tumma ab topp ab mboole seen ndax lu nga ne jaa al xawmu teg ajmahoona ak taxoona ab boole ñeenti baat yépp di firi mboole seen rek noonu ñi fetli lenn des na koo def ngir dëgëral fetli ko waaye niiwaan nga gis kenn ko amu jot bay def lu mel noonu waaye nag des na ko jëfandikoo noonu man nga itam jaal jaysu ajmahu aktahu abtahu absahu mel noonu niiwaan nga gis ko ko wax misaal la jëmmi tawkiit nag ba mu toppeelu rafaa ba mu toppeelu nasab ba mu toppeelu ka xawli kan gis way janga ne waxna rabbi sama borom nafsuhu jëmmi sama borom kat ma wax ne ma anta yow tufidu da nga jariñ alqawmu nit ña kullahum kep ci ñoom wato silu da ngay almurida ci yalla al murida talibe ba bu ne sa borom neena ngay japp ne sun borom ci bop waxut da wax ba ci gene anam waaye mu ne saa borom ci boppam kat moo wax ni ma yow daal da ngay jëriñ nit ñi loolu ba tey mën naa am nit ñi ñenn ña lay jëriñ mbaa ñu ci gën a bari waaye du ñëpp mu fetlee ko ba tey kullahum képp ci ñoom xam ne boo nee xaala fiilul maadin la rabbi mooy faayilam lu mu rafaaye dam bu ñett la ci lu njëkk yaay mutakallim tey mu daaf yaay ji nafsu tawkid la ci rabbi topp ko ci rafaa rafaaye dàmm تي مضاف انت مبتدا لا المرفع لي ضمير تفيد فيه المضارع لا رفع دم نبا انت مي فاعلم القوم نك مفعول به لم نصبه فتاو تخدي لسم جمع كل نك توكيد القوم تبقى نصب نصب فتا تي مضافهم xamne nafsu mo top lu rafa dal rafa kulla mo top lu nasab dal nasab ak wa innani naka man donu sat boromuk labire la lil qawmi ñel nit ña ajmaxina mboole seen li koy uqima ngir naa taxawal ak diina diina ja boo seetloo inna xarfu tawkiid wa nasbin la te innaa ci bokkam nun bi ci des nunu wiqaaya la yaa ji mooy lisimi inna doo jële mooy xabari inna lu mu dafaay waaw ndax daa bokk lisim juróom tey mu daaf nusxatin lil xaw mi nekk jaaru ma juróom te aju ci nusxatin lu mu xafale moom lil xaw mi ñu lu xafale nga ne kasara gi lu tax ne day di suñu jam ajmahiina jooju nag mooy misaal mi tawkiit la ci al xaw mi ci ko topp xafad lu mu xafada nga ne yaa gi lu tax nga ne day jamxul mudakari salim xam ne kon loolu mooy misaal bérébu xafad bi bu ne man damay laabire nit ñi foofu ba tey mën naa jamtalu ne ñu ci ëpp la mbaa ñenn ñi waaye du ñëpp mu fetli ko ne ñëpp kay ajmahiina damay laabire ñëpp ndax bëgg taxawal diine li koy uqima ngir naa taxawal ad diina diine ja koy def ad diina bi def ab tomb def alif ndax mu jubonte way wi ci ajumaay babul badali li moy buntu badal in ubdile dem badaleef na ismun lisim min ismin ci lisim tabiha kon mu top ko fi awjuhil i'rabi ci anami yi hindal barahati fo way rawiya so ne in ubdila ngay natale ubdila dila digante in ak ismun ndax boo jëlee ba li ngay séen ci sa bët teg ci ismun day mel ne kon ismun mi dafa jiitu ubbi la bi final bi te boo bëggee wax in ismun dem lisim ñu la in day jumtukaay sart dañu bañ mu dugg ci mubtada kon na ngay wax in ubbi la dem badaleef na te jàpp ne ubbi la ji tudd ci gannaaw in ji yaa ko fi tolloole mu dox diggante in ak ismun waaye bokkut jële ngay seen ci sa bët daa wax ne rek soo badalee lisim ci lisim baat bi nga badal war a topp ba nga ko badal ci mboolem anam yi lum def rek mu def ko parafaaye mu rafa bu nasabe mu nasab bu xafade mu xafad wa misluhu am kemam la al fi'lu fihal ala altizamin andako war batay neena boba dalé fi'al ci fi'al batay non la fihal bi nga baral tay top ci banko baral badal def mu def ko wa huwa mom nak ala arbahati nek na ci ñent aqsamin ay xaj su fekkon doy nga jekki jekki ne ala ati aqsamin muy gëna gatt waye nak waye tax jang, ala arbahati nek na ci ñent ala arbahati mo bo xabari huwa diko jitu aqsamin badal la ci arbahatin ji da ne badal ñenti xaj la kul waxal ne badalu shay moy badal dara min shay ci dara amna ñu woyé badalu shay min shay lolu moy bar bu nek badal ak bañ koy badal ñoyé mo kep bu mujj bi mi badal gi dafa gëna leer rek waye kenn ka rek la mom taxawli di ko ni so nga ne jaa adik na sayyiduna sunu sang muhammadul muhammad mubtahijan bir muy aji bek wax jaa fi madin la sayyidu moy fa'ilam rafa'idam dam tayum dafna muhammadun badal la ci sayyidu mubtahijan ji mom xal la lay nak bo setlo sunu sang bi moy muhammad batay muhammad moy sunu sang bi nga xamne bo setlo sayyidu muhammadu kenn rek lañ waye nak muhammadun ji mo gëna leer sayyidu ji lolu moy badalu shay min shay wa al bahdi ak badal min al kulli ci lepp badal len ci lepp mom moy bar ba nek badal day nek len ci lang koy badal mom ku yomba xame lay don ka xawli gi ni su xaja nga ne in tashrab dem na nga nan dawa i sama safara si ha ah, nisfaho gen walam gi rek soko nané tuk fa kon def na la fegal almihana chona ya in harfu shartin jaasimun la tay jasam yari final tashrab mooy fexali sartam jasami sukkoon na bu naan tamit faaxilam i mafoolum bi la ci tashrab yu mu nasabe fataabatale ci li njëkk yaay mutakallim tey mu daaf yaa ji nisfa badal la ci dawaa i topp ko nasab nasabi fataa laaf xoo tukk fa mooy fexali jawaab ji jasame dag arafu ràgg wa na bu naan tamit naayibam almixaana nekk mafoolum ñaareel xam boo tuddee naayib rek cosaan mafool la woon kon almixaana mafoolum ñaareel la nasabi fata ndax day jamu taksir nisfa bobu lay wone ne badal la ci dawa yi te badal len ci lepp la tax bi nga ne dawa sama safara duwal nga lepp safara si te bo ne genn walam nak genn wal gi len la ci mom ba'dahuma nekkal ci gannaaw ñom ñaar badalu istimali badaluk lambo wa badalu ghalati ak ñoom de ku jappal mitali sama misal neena ñaari badal yi bo len tuddi ak yaare ya ñent badalul istimaal ak badalu njuumte xawli gën gis waja nga ne ramma yéwénal na rabbi sama boroom nuuruhu leeram nga kat mooy yéwénal axwaal yi samay mbir badalul istimaal li nga koy xàmmee mooy du nekk jëmm ju ne léegi day nekk aw melo rek woo mën xam ni ko defee jëmm ji ne leer ngi nii koy xam rek du tee bu leeree ñu xam leer bu la nëbee ñu xam la te sax bu dee leeru baatin gi moom nekkul looy jàkkaar lool ramma fiilul maadin la rabbi ji mooy faaxilam am rafaaye tàmnata ci njëkk yaay mutakallim tey mudaaf ci rabbi topp ko rafaa na sabe moo boo ne woon ajabani yéemuloo na ma ahmadu ahmad boo ci tegee usluhoo taaram ba wala ilmuhoo xam-xamam ba wala adabuhoo tegginam ya wala xasaduhoo kañaanam nga ak yu mel noonu nga xam ne moom aw melawu muy làmboo rek la yu noonu mooy nekk badalul istimaal loolu moo tax mu yomb ba xàmmee ak bi atu jaay naa daa lii aha daaka loolee li wacc waa lii ngir jëmmi kilifa ga badalu njuumte moom li koy waral mooy ba ngay tudd baat bu jëkk ba jubluwoo ko woon sa lamiñ moo rëcc rek nga tudd ko waaye bu ñaareel ba moo la taxan di wax nga daal di bàyyi nag bu jëkk bi teg ca ba ca des niki boo nee jaay naa lii fekk da ngaa jum ne ah zaaka loolee kat laa jaay loolu mooy lu xalat xam ne tout fin lak faaxin la zaa ji nekk ma foolum bii lum na sabe ngay ne day ismu isaara zaa yi ñaaral ji badala ci bu jëkk bi ba tey topp ko na sab lum na sabe day ismu isaara kaaf gi xarfu xitaabin la yu wacc ci moom nekk jaar mu juróor xafale kasrate mu gaaf alwaani baabu mansubaatil asmaa yi lii buntub ya ñu ne sab ilisimi nagam jeexal na yi nga xam ne buñ ne atem rafaa ngay wax ba teg ci way topp ya ci bëgg a teg way nasabi bi nag wàññi leen benn benn ba noppi nag dol ko def ay bunt ku wax rek ba mu jeex ñu jàll ci ka ca des amal lësi ndaal la nga xam ne yun sabu def na ko nasab min asmaayin ci ay lisim fa xam sata achara fukk lañu juróom bilam ci daañ ci lu werante lisim yi nga xam ne buñ ne luy àtteem nasab ngay wax xaw nañoo bari mat nañ fukk ak juróom wax ñoom mafxoolun bii bihi wa masdarun ak masdar xaalun ak xaal wa tamiisun ak tamiis munaadan ak lu ñu woo yaxduru loolu dana teew way woowu mafoolum bi mi ngi ci ak masdar muy ñaar ak xaal muy ñett ak tamis muy ñeent ak munaada muy juróom fekk munaada du saa sax mu nasab waaye am na fu muy nasabe waxut dana nga limaale maa la nga xam ne ustus ne setteef na ko al mustasna lañ settee moom du saa yu ne sax waaye am na fu muy nasabe ma fi samaani ànd ak darfu samaan darfu samaan day nekk baat bi teg li jamono nasab ko ci jumla ja wone jamono dañ ko gis ci kanam wa hakata ni kini ismu la li shimila dafa am la bu ñu wax la jins bu jëf jëf inna am atay bopum tax ñu deral ko buntam koku li day nasab ni li inna nasabe rek non la li jey nasabe kazalika kini darful makani darfu makan darfu makan day nek baat bi rek li berep ñu andi ko ci jumla ji nasab ko bu fay wone ba xew-xew ba amee kon way woo ba tey tudd nañ ci al mustasna ak darfu samaan ak lisimila ak darful makaan xabaru kaana ak xabari kaana was mu inna ak lis mi inna maxamaa ànd ak la nga xam ne xadintama askanu na laxumaa jëm ci ñoom ñaar min axawaatin ci ay mbokk soye boo ñëwaale nag xabari kaana ak lis inna te kenn ku ne mook ñam bokkal benn buntu ñoo bokk loola say bo ne xabari kaana ak mbokam ak lisimi nak mbokam bok nañ ci way nasabi te wona ko tudd rek bañ ko ngir nga xam ko rek bañ ko fatte waye du jar mu diko waxaat ndax ku ci ne bam ci tollo waxan nako ci buntam kazaka naka nonu mafhulun kuñ jëf jëf la ho ngir mom mislu ma ho kem mafhulun ma ho da am ñu woyé mafhulun la ho wala mafhul min ajlihi lu ci nek dañu ko ko wax ak mafhul ma ho lu ci nek atté moy nasab wa taabihul mansoobi ak aji topp lu ñu nasab aji topp lu ñu nasab nag mooy yeenti yee mu weesu léegi ci kenn ku ne mu beral ko bunt da koy wàññi rek moom itam ngir nga xam ko waaye dana ko tàyyee waxaat ku ne mu koy beral bunt moo tax waxuwa moom nga ko waxuwa moo gën a yàlla ci taabiham arbaxatu asiya yeenti yëf la naatun mooy naat tuma tawkiit topp tawkiit xulima juj xameef na ko tuma ta atatun topp ataf badalun ak badal fal taxatoo ñun na nga màng yent yi mooy way topp yi na ataf taw ci badal te ku ci nekk ba mu fa tolloo misaal na fa mu toppee lu nasab na misaale fa mu toppee ak fa mu toppee lu xafab baabul mafooli bihi lii moo di buntub al mafool bihi waxuwa moom assuma mooy lisim ba allësi ba nga xam ne alfi'lu xew-xew ba yaqaxu dana dal bihi ci muntasiban bir bu muy aji nasabu wa fulum bi yom na xamé moy ka nga xamné mom la xew xew ba dal ci kawam ka def xew xew ba moy fa'il ka xew xew ba jall dal ci kawam nak mo tuddu wa fulum bi atem nak moy nasab ka hal ka ni sa wax nga ishab andol ak adiban aji tegginu wala aji xam qad khasha jot ragal na yalla andal ak yow yaay andal ka nga àndal nag kon ishab fil amril la ñu ko ci li mu daal yoo di jasami mooy sukkoon nu banaan tam yi faaxilam adiban nekk mafoolun bihi nasabi fataa waxoo moom mafoolun bihi ala qismayni nekk na ci ñaari xaaj zahirin zahir wama ak loo xam ne xat jaa dikk na modmaran mbir mu muy damir te xawlil xulamaa ci waxi way xam ña nee na mafoolun bihi ñaari wàll la ndax ma naa nekk damir mën naa nekk lu bokkut ak damir te mooy zahir lu ci nekk mën na koo doon fa zahiru zahir sa allazi mooy la nga xam ne taqaddama jiitu woon na ca almitaalu misaal ma fii awali baabi njëlbeenu bunt bi hadaanaa yal nanu jubal dul jëlaali borom màgg gi waxoolu bi mu nekk li si ni moom nee mooy li ma njëkk a misaal ci way wu njëkk bi ci bunt bi mu ishab adiban adiban jooju ma xoolum bi la te li si zahir la kuy nekkul damir wala mudmaru damir ba allasi mooy la nga xam ne yajiw dana dikk muttasilan mbir mu muy aji yokk kalkaafi ni ki kaaf wala yaay ak yaa bu yajiw te muy dikk munfasilan mbir muy aji facc daa wax ne mafulun bihi may nekk damir ñaari xaaj la mën naa nekk muttasil mën naa nekk munfasil moom damir ba muttasil mooy damir bi nga xam ne da nga koy booleeg fixal ba taqale ko ci mbind taqale ko ci piri fasir nak moy bi nga xamne bokuy bind mok fi hal ba da nga len tagale ci mbind mi tagale len ci primi batay dañu ko xamle ci wax ne muttasil moy damir bi nga xamne desu ci mana tambale ay wax tayit bu de ci wessal rek ba way wo xamne narta deung du top illa bu de mun fasir nak mom dañu cey mana tambale ay wax tayit saa yu la soobee rek mën naa topp illa lee mu misaale ni ki kaaf ak yaa day wane ne kaaf ga nekk ca akramaka teral na la wala yaa bi nekk ci akramani teral na ma ku ci nekk tamiri muttasil la mëne su cee tàmbalee wax tayit du topp illa bu dee ci wesar wala ci way woo xam naruta dëng waaye nag niñ ko njëkk xamlee ci damiri muttasil mooy damir bi nga xam ne moog baat bu mu àndal te nga leen di boole ci mbind mi taqale leen boo leen dee firi itam boole leen firi mooy muttasil mun fasil nag mooy bi nga xam ne day beru ci mbind mi beru ci firi mi fa awal jëkk xadaduhoo liman ba isna achara fukk laa ñaar bi xaw liman ka nga xam ne xat dara xam na bi ilmi naxwin ci xam-xamu naxwu gu jëkk gi mooy damit bi jokkaloo fukki baata ñaar lay doon ndax yow mi wax danga ci am ñaar ñi ngay waxanteel am ci juróom ña am ci juróom nga xaw li ko ni soxla nga ne innahu naka moom akramani teral ak akramani teral nama akramana teral nanu akramakum teral na yéen mbooloo mu góor mi akramakunna teral na yéen mbooloo mu jigéen mi zamanan ci diiru jamono wala samanan ci jamono ak akramahu teral na góor ga fa nekkut akramahum teral na mboolo mu góor ma fa nekkut qaadahuma mat na ñaar ña fa nekkut akramaha teral na jigéen ja fa nekkut mud annahu di ruf naka moom saadakuma sang na leen ñaar ñi ma jàkkaarlool akramahunna teral na ñoom jigéen ñi fa nekkut summa qad akramaki topp mu teral la yow jigéen jile wa anta yow góor gi xadd xaddamaka jiital na la alqaadi yi aji àtte ja azzaki jay aji sell fukki baatee ak ñaar yow mi wax am nga ci ñaar yaa bi nekk ci akraman yi kii wax moo ko moom foo ko fekk mu jël si ci moom ak noonu bi nekk ci akramana moom nag léeg-léeg mu nekk moom naa muy faaxil waaye bu ñu ko jokkee bi ma foolum bii mene fii mu nekk fekk ko nun noo teral nekk akram naa diko jitu sukon waaye bu fekkee dañ noo nag waxul bii la kon akrama naa nañ koy xàmmee su naa bi nekkee faayil la ko jiitu dañ ko war a binaa ji sukkoon bu naa bi nekkee waxul bii nag la ko jiitu dañ ko binaa woon ci fataa du ko kon jàppal yow yow am nga ñaar bu yaay mu tëkkalim jooju ak naa ñi nga jàkkaarloo nag mooy góor nga jàkkaarloo mooy ka nga gën a nekk ci xadd xaddamaka ak ki nga nekk ci qad akrama ki joju ak kuma ji nek ca sadakuma ak kum borom gor mu nek ca akramakum ak kunna gi delu ci borom ji mi dakar lolu akramakunna kon jappal ñi ngay waxantel mom faaw mu am kaaf budé gor ga muy ka budé jigen ji muy ki budé ñaar muy kuma budé borom gor muy kum budé borom jigen muy kunna joon la fa nek faaw mu am al kubér budé gor gi fi nekut muy ho gi nek ci akrama ho bu dee jigéen muy xë bay gi nekk ci akrama xë bu dee ñaar muy huma bay gi nekk ci xaada huma bu dee mbooloo mu góor muy hum bay gi nekk ci akrama hum bu dee mbooloo mu jigéen muy hunna bay gi nekk ci akrama na kon fukki baat yaak ñaar ñu ngi noonu dañuy jokk ci final ba nekk ci mafoolum bii ba mu des naa naa mën naa jokk moom doon ca faaxil waxtaani ñaareel bi aydan ba tey xat ataa dikk na mu it nay xachara mbir muy fukk ak ñaar inda ibnu daawuda fa ibnu daawuda allazi ma nga xam ne tabaxara géej na ci xam-xam ba tey damir bi tàqali ko ak fixaal ba nga xam ne danga koy tàqali ci mbind ma ba tey tàqali ko ci prima fukki baata ñaar lay doon yow mi wax da nga ci am ñaar ñi nga jàkkaarul am ci juróom ñu fi nekkul am ci juróom taqul da wax ci misaal ma ne xadaa jubal na iyaaya man wa iyaaka ak yow góor gi iyaki ak yow jigen ji iyana ak nun wa fadate mu joto iyahum ñom bolom gorma iyakuma ak yeen ñaar ñi iya ak mom gorga iyakum ak yeen mbolom gormi mi dana wa mat iyahuma ñom ñaar su mata yesu top dana sang ha mom jenn jigen ja wa nahnu nun nuhibbu dana nu sop iyakunna yeen bolom jigen mi le yaa xóoru yéen jigéen ñi àjjana yi wala nga ne yéen way rafeti bët wa ante yow góor gi taxawaa da nga sopp